هو الذي خلقكم من طين ثم خلا أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu xaq di leen bal di ñaanal al cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ba lépp lu mu naal ci yéene ko liggéeyal al cheikhul xadim sunu borom kàttanal ko di ko ñaanal njabootu Serigne Touba gi yépp ak kilifa diine yi ak jullit yi ak taalibe yi di nuyu njabootu sëriñ Mor Diouf Diatty ci dëkk bu sell bu màgg bu tedd bii nu nekk muy Daaru Salaam Diouf tàmbalee sunu nuyoo sunu ziyaar ci kilifa gu baax gu tedd gi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu sëñ moor gi yépp di ko ñaanal yàlla sunu boroom yàggal ko ci kanam njaboot gi te wéral ko yàggal njaboot gi yépp ci ginnaawam di ziyaara bu baax Serigne Modou Diouf moom Serigne Touba di jaarale ci moom nuyoo yëpp ak ziyaar yëpp ko ñaanal yàlla ak yàgg ak wér ba lépp loo xam ne way juróom bu baax wa tàmbali woon na ko te amoon yéene jëf ko mu jëfe ko ni ñu ko bëggee te defe ko ak sagoom di nuyu bokki taalibe yi nga xam ne ñooy màggi kër gi yëpp noo leen di ziyaare bu baax di nuyu daayira bi nga xam ne ñoo amit taxawaay bu am solo la ñu amee ci dundal kër Serigne Mor noo ngi sant yàlla bu baax bi mu nu mayee tawféex defal nu ngëneel ba ñu dellu siwaat ci dëkk bu sell bi dellu si waat ci bu màgg bii ci njaboot bu tedd gi nga xam ne ñoo nekk ci pénc mi di njabootu Serigne Mor Diouf jataay boo xam ne nag dañu ci fàttaliku borom ngërëmul yàlla di ci fàttaliku borom ngërëmul Cheikhul Khadim di ay royteef yoo xam ne dañoo jeexal seen dund lépp ci lu leen di taxa bokk ci tagg woowu nga xam ne borom bi subhaanahu tagg na ko gaa ko matale ci alquranul karim xam ngeen ne sunu boroom mi nga xam ne moo sàkk jaam ñi def ko ay xaaj ñenn ñi di ay way gëm ñenn ñi di ay way weddi wala iyaadu billah ci biiru way gëm yi daf ca tànn kuréel yoo xam ne moo leen taggal boppam te ñooñu ñoo ñi nga xam ne li leen sunu boroom sakke ba tax mu wàcce leen ci kaw suuf ñoom matale nañ loola nag moo tax boroom bi waxoon ne min al muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhim fa minhum man qada nahba wa sunu borom tagg na gaa ñi nga xam ne ñoom matale nañ li yàlla daale ci seen diggante ak ñoom daañu baax ñi nga xam ne nag ñoom la ñuy fàttaliku ñoom day bokk nañ ci minal mu'minin rijal nga xam ne xam nañu bu baax li tax sunu borom sakk leen ndax moo ko wax wa maa xalaqtul jinna wal ins illa li yaabudun euh, sakkuma nit ak jinne lu may nu jaamu jaamu gi nag dafay séddali ci ay xaaj al ibaadatu al muamala al muamala xasana fexe ba wéetal yàlla ci jëf ju baax ci ay cër jëf ju baax jooy fas ci sa jëf ju baax juy tudd ci sa làmmiñ waaye fexe nag ba sa diggante ak jaam ñi it nga jëflante ak ñoom jëflante bu mat jëflante ak ñoom jëflante bu rafet loola mooy tax jaam bi matale digganteem ak loola waaye xam nga ni sunu boroom moom day buur boo xam ne du tooñ ab jaamam wa ma rabbuka bi dhalamin lil abid koo xam ne nag du tooñ moom sunu boroom day la jëf mooy bépp jaam boo xam ne liggéeyal nga ko liggéey bu ràññiku bu sell bu mag mu pay la pay boo xam ne gu mat lay doon bu sell lay doon bu yaatu lay doon loola moo waral muy ful sax jëf ju baax ju nit ki jëf euh, mag ñu baax ñi nga xam ne it dañoo amaat beneen cër xam ngeen ne sunu boroom ci kàttanam ak sañ-sañam ak man-manam dafa wax ne maay mayee ku ma soob sama ngëneel sama yërmande sama alal kon nga xam ne bu waxee ne ngëneel a ngi ci loxob suñu borom aji ku ko soob la koy jox wax yërmandeem dafa waxit ne buy séddale wërsëg yi yabsatu risqa liman yasha noonu la koy doxee ku ko soob rek mu jël wërsëgam jox la jël xam-xam jël sañ-sañ ak man-man yépp jagleel la mag ñu baax ñii nga xam ne nag dañu mel ni ay biddiw ni ki sallallahu alayhi wa sallam woon ci ay saxaabaam waxoon ne asxaabi kan nujum bi ayyihim day ihtadaytum sama saxaaba yi dañoo mel ni ay biddiiw kenn koo ci roy topp mbóoram faw nga jub faw nga jariñu ñooña nag ñooy bàyyi mag ñu baax ñi toppoon sëñ Tuubaa ci diine ndax loolu yi la Cheikhul Xadim waxoon te loolu boo xoolee ci minan boo xoolee ci minanul baaqil qadim fekk ko ca boo xoolee ci irwa u nadim it fekk ko ca muy ay nettali yu wóor yoo xam ne sëñ bee ko nettali saxal ne yéen kat murid yi saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine mu leen daan ñaax loolu la leen di wax kon dafay ñëw ci li sëñ bi waxoon moom it li jaada bil buduuri wa shumuus yàlla dikke na ma jox na ma ay jant waaye jox na ma ay weer mag yi Sëriñ Tuubaa ñoo ñiit koo ca topp fam lay jëme mooy Seyxul Xadiim Sëriñ Tuubaa yar na leen def ci ñoo melo yi gën a mag kon koo ci tudd di ko waxtaane rek yaa ngi waxtaane Sëriñ Tuubaa yaa ngi waxtaane lislaam yaa ngi waxtaane yoon wi di leen fàttaliku nag di ndax ndaw ñu bari yàlla may na leen tawféex yi bëgg leen te jamonoontewun ak ñoom te adduna li ñuy wax royteef jafe te nit ki bu amul ku koy wommat amul ku koy xëcc dana ko sóob ci lu gënut kon tey bu ñu ñëwee ci dëkk bii di Daaru Salaam Diouf fekk fi njabootuk sëñ Mor Diouf Diatty mi nga xam ne kenn du tudd jàmbaar yi ci biir kër a Cheikhul Khadim te tudd loolu kenn du wax boroom taxawaay bu yaatu ci kër Serigne Touba te waxuloo histoire am ak pas-pasam nag ak pësséefam di ko waxtaane ak di ko fàttalee dana tax ñu bari gindiku ci kenn la ci ñi nga xam ne sunu boroom daf ko tànnal askan wu sell askan wu baax askan wu tedd waaye kenn la ci ñi nga xam ne it sunu boroom ubbi na seen dënn ci leeral ko tabbal ci leeru Serigne Touba ba bi Serigne Touba wootee nu wujj xam ngeen ne kon ci assaabiquun assaabiquun yi ca la bokk bu ñu doon wax sëriñ Mor Diouf Diatty dañuy wax ne moom day ca ña jëkk a ji woote bi Cheikhul Khadim woote woon ca Mbakke Kajoor ca la bokk waaye ku amoon tawféex la it ci sëñ bi am ci moom cofeel gu yaat waaye moom it mu am ci Cheikhul Khadim cofeel gu yaatu waaye ku ci am cër la bu rëy boo xam ne liggéeyal na sëriñ Touba ba dajale ay ngërëmam yu yaatoo yaatu waaye it na jaami yàlla yi liggéeyal na jullit ñi liggéeyal na ay dëkkandoom liggéeyal na ay bokkam te ci biir ay mbiram ak i jëfam ak taxawaayam danga ci xame yaatu dënnam da nga ci xame ngëneelam da ci xame jagleem Sëriñ Tuubaa bi mu jotee ndigal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu bàyyi ko sunu boroom ba muy woote dafa wax ne yàlla digal na ma naa leeral nit ñi ci xamal leen ne man mii maay wéeruwaay maay làquwaay bépp jaam boo xam ne namm naa euh, am yiwu àdduna ak yiwu alaxira na ñëw jox ma boppam kon loolu boo ko déggee da xam ne déclaration la boo xam ne jaam bu nekk war na koo dégg war na koo xam war na koo jàpp war na koo jëf amarani rabbi bi an usarriha bi annani malaadun wa himan wa mafsaun fa man araada al xayra fi kiltay daarayni fal yalus bi kon day mel ni woote bu mag boobu bi ko Serigne Touba wootee Serigne Mor Diouf bokk na ci njëkk wuyu Serigne Touba bokk ci jëkk a jaayanteeg moom ci dëkk boobee nga xam ne moom la ñuy wax Mbakke Kajoor nga xam ne kon ca ñi jëkk a jaayante ca ësës te mooy bi yoon wi sosoo ca la bokk ñeent fukk yooyu jëkkoon a jaayanteeg Serigne Touba nag nga xam ne ñoom la ñëpp tege ci ñoom moom moomu ca la bokk Serigne bi moo ko tërbiya moo ko tarqiya moo ko tasfiya moo ko seexal tibbal ko ay ngëneel dafay mel ni nag borom tërbiye gu gàtt la waaye borom tërbiye gu gudd la ndax boo xoolee li tàmbalee Mbakke Kajoor bi sëñ bi wootee yoon wi diir bu néew la fa def ñëw sañc dëkk wala dellu si Mbakke Bawal di dëkkub cosaanam ngir fala feeñe jamono moom Cheikhul Khadim ginnaaw ba nag xam ngeen ne bi muy ñëw dëkk boobu sëñ Mor Diouf Diatty bokk na ci ñëwoon mbakki bi mu sañcee Daaru ci deses nga xam ne mooy dëkk bi mu njëkk moomal boppam nga xam ne yar nit ñi ak defar leen rek a tax rabbi biha min al wara ma la yuad yaa xayra man rabba wa xayra man waad dëkk boobu nga xam ne ñaari at rek dafa def muy deses wasal si nit mu sanc dëkkam boobee di Touba kon xam ngeen ni bi muy sanc Touba sëriñ Mor juuf jatti mu baax mii bokk na ca ñooña waaye ba ñu ñëwee nag ba ci at mii nga xam ne mooy mille trois euh, nga xam ne day dem ci at yoo xam ne day wane aw melo ak doxin te moo di at mi nga xam ne ci la cheikh Mouhamadul Amin Baara feeñ jamono ca dëkk bu sell boobu di Touba ci 1890 wala 1891 ndax xam ngeen ne. 86 ci la Cheikh Mamadou wala 88 Cheikh Mamadou Fadel wala Cheikh Mamadou Moustapha ci lañu ñu feeñ mu mel ni nag Cheikh Mahamadou Lamine Baara moom bi muy feeñ Touba dafa am ngëneel yu rëy yu mu indaale indaale tedd nga yu yaatu uur bi nga xam ne ñoo jóge woon Mbakke Kajoor ñëw Mbakke Bawal ñëw Daaru ñëw Touba bi Cheikh Mouhamadou Lamine Baara feeñee jamono Serigne Touba da caa woo ca kuréel boobe te bokkoon na ci ñam doon woo Serigne Mor Diouf lan la leen Serigne Touba wax inna dayfa haada qad ataakum bi jamii matalibikum gan gi fi ñëw tey kat andaaleel na leen mbooleem loo leen doon sakku yàlla borom bi subhaanahu wa taala gërëm na leen yonent bi alayhi salaatu salaam gërëm na leen may gërëm naa leen kon day mel ni Cheikh Mahamadou Lamine bi muy feeñ dafa ëndaale ngërëmi yàlla yooyee waaye sëriñ Mor Diouf am ca it ab taxawaayu boppam bu yéeme mu di bi sëñ Tuubaa loolu nga gis ne kon ku ku jógee Mbakke Kajoor ñëw Mbakke Bawal ñëw Daaru Salaam ñëw Tuubaa ci tërbiya booba ni ni tërbiya méttee bu ñu bëggee naan du ñu am lu ñu naan bu ñu bëggee xéewlu du ñu gis lu ñu xéewloo di boole mar ak coono te booba sëñ bi mu ngi ci xaalu taxañ ngir def ci ñoom lim ci bëgg a def ngir li muy waaj te moo di liggéeyal yonente bi alayhi ak yan bu rëy bii nga xam ne daf koy xaar tamit contrat bu mu signé digganteem ak boromam waaye xam ngeen ne bi mu waxee sëñ Mor ngërëm lii wax ko mag ñi dafa am wax ju rëy ju sëñ Mor Diouf wax joo xam ne damay faral di wax ne moom day képp ku féete sawu jant ameel nga ko ak cant ameel nga ko njukkal ameel nga ko bor boo xam ne it mënoo koo faggul sa bopp ndax fa ko doon boo am na fa te jot ca jafe na bi sëñ bi waxee loolu sëñ Mor daf ko wax ne ginnaaw man maa jëkk a bàyyi koo sawu jant ñëw jaayant kon maa fi jëkk a bàyyi koo ñëw fekk la fi nga nekk jaayanteeg yow bu ma sañoon nag bu ma ñëwee fii ba liggéey ba am ngërëmul yàlla am ngërëmul yonent bi am sa ngërëm bu ma delloo ca sawu jant képp ku fa faatu doo leen sawar loolu daal booy sama bëgg-bëgg man Serigne Mor Diouf mooy bu ma delloo daal ku dëkk sawu jant bu faatoo ajjana lay dem waaye du dem sawara la ko tàmbalee nag ca yoonu gaal ga te moo di raay ba muy saxaar ga ba ca géej ku fi nekk rek moo sañoon ci liggéey bii ma liggéey fi yow du dem sawara sëñ Tuubaa na ko loolu nag daa leneen lu koy joxewaat lu ñuy jaay la njëg gi mooy tërbiyewu yaat yeneen ñetti at sëñ Moor laxasuwaat yeneen ñetti at yoo xam ne dañuy boole sikar jàng alxuraan boole xiif boole mar boole liggéey ndax kër këri Tuubaa booba metti na ñetti at la ko jaayante waat di ko lëggéeyal Serigne Touba ndax làq na ngërëm lu njëkk la moom bi sëñ Baara feeñee waaye li mu doon fagguwaat mooy luy tax ñim dëkkal ñim bokkal ab gox ku ca faatu mën a tabee jëm loola nag diirub ñetti at yi ba mu ko lëggéeyee ba noppi la Serigne woolo waat ko ba mu ñëw mu xamalaat ko ne ko li nga doon sàkku yàlla suñu borom jox na la ko ba mu ngi say loxo kon na nga xam ne xoola boobu xol bu yaatu xoola jooju yéene ju sa njaboot faggul say dëkkandoo faggul gox bi nga bàyyi ko ci biir liggéey bi ngay liggéeyal Cheikhul Khadim bu ca kenn dem sawara liggéey bu rëy boobu nag mosu caa dakk mukk bokk ci cheikh Serigne Touba yi nga xam ne ñu ca ràññ ku lañ sëñ Moussa Ka ba muy wax dafa wax ne ma dellu lim li Bamba am ci ay cheikh yu sant Diouf ku leen muridu far cheikh Serigne Mamar Diouf jëtti moo ko seexal waa sawu jant gépp moo leen seexal nga xam ne kon mooy làmp bi nga xam ne dafa féete ci euh, sawu jant moom Serigne Mor Diouf mu di koo xam ne ko bari ngëneel la bari jagle mu am sañ-sañ ci suñu borom yàlla defal koy ngëneel moo tax am ko waxoon ne rawatina ko wax lu baax ci waa waaju baax ñu fay la ko nga daal nekk waa ju baax ki nekk di waa ju baax ba di waa ju baax te sant Juuf soo ko xamul kookaa di Cheikh Mamar Juuf ku baax la lool seen selli cosaan tey waajur Cheikh Bamba ñëw def ko mu gën ay waajur baayam ku baax la moo di may Maysa Soosi Juuf yaayam ku baax la bint Juuf amul ku soof ca ama sharain la feeñ fa ñett fa jëtti looloo taxoon ñu naa ko moor juuf jëtti baay baa ko tuddee ahmadul makki yu nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàllaa ko booleeg ahmadul makki yu kon sëñ moor juuf lañ tuddee ahmadul makki makki yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam sëñ Tuubaa yi ñu boole ko moom waxtu ndawam la jàngi quraana ca daara joojee la taree qur'aana ba mu tare ca yooye fan Seyxul Xadiim ñëw fa kajoor nit ñépp di ko yéem bisub keroog la Mamar Juuf seetaani Seyxul Xadiim ma nit ña doon seetaani bisub keroog la njëkk a gis Seyxul Xadiim Seyxul Xadiim sopp ko ngir layul karim nga xam ne sëñ Mamar Juuf moom bis bi mu njëkkee gisante sëñ Touba sëñ Touba ko amee la cofeel bëggal ko boppam cofeel nga Bamba waral mu soppikoo ko looloo waral ca yooya fan mu toppikoo ko nga xam ne daara jam nekkoon ca wajja ba ko fa Serigne Touba fekkee bëgg gi ko Serigne Touba bëgg ak sopp gi ko Serigne tubaa sopp moo tax moom it mu dellu siwaat jëtti taggu ay kilifaam dem jaayanti ji ak Serigne Touba nga xam ne ñaanu Serigne Touba goom doon wax ne wali yahab ma shitu fi rijaali wa fi nisaai waltu nawir baali Bamba ko wax góor ak jigéen ku mu soob na ñëw ci man ñaan naa ko buur te ba mu soob ca yooya fan la bàyyi ko ca daara ja dellu siwaat jëtti ëndaale ja ca yooya weer la mamar génn jëtti fekki Serigne Touba mi kenn dul fatte Mbàkke Kajoor la xewoon Cheikh Bamba jébbal ko boppam jox ko léppam Bamba nga xam ne Mbàkke Kajoor la jaayante woon ak Serigne moom Serigne Mamar Diouf ca ama assasine la Bamba woote ca ama la ñëw du wuute ba sëñ Touba wootee rek ña jëkk a ba ci la sëñ Mor Diouf jati bokk booba la ñaar fukki at juróom yu mat boobee la ñaar fukk juróom benn yu mat nga gis jàng ci ne bi muy wujj sëñ Touba amul fanweeri moom Serigne Mor Diouf jati ñaar fukki at juróom wala ñaar fukki juróom benn moo tax mu ne booba la ñaar fukki at ak juróom yu mat boobee la ñaar fukki ak juróom benn yu mat lay door a am ci addunaam moo di moo di xatam ca mooma at la Bamba dem Mbakke Bawal ànd ak murid yi ñëpp dem Mbakke Bawal ca ama de la dem Daaru Salaam yóbbaale leen ñuy jaamu rabbuna salaam nga xam ne fépp fu dem da leen di yóbbaale Seex Bamba mas na koo wutloo ab téere muy wër ba dem Ndakaaru amul ab téere nga xam ne sëñ Touba mas na ko wulloo téere boo xam ne moom sëñ Mamar Diouf dem na ba ndakaaru am téere ba mu leeru géej di dox ba ndar la teere am na ñu naa yoonu saxaar la jaare ñii dañ ne ba muy dem daa dox ba ndar ñii ne daa jël saxaar foofee fa ndar la jënde woon ab téere yóbbul ko Cheikh Bamba ma am ay fóore déglul ma wax la bis ba Bamba seexalee bis ba sëriñ Baara ñëwee la seexalee nit ak juróom ñett rakkaati gàmmo ca amata sa sin jar naa gàmmo muy 1891 bis bii la Bamba wàcce Cheikh Mamar Diouf keroog la am taalibe yu wuyoo Diouf sëñ Tuubaa gërëm jox ko ngërëm moom sëñ Mamar Diouf mu ne keroog la am euh, taalibe yu wuyoo Diouf Bamba nga naa Mamar sa mbir yéwén na tey tarbiya ak taraqiya lépp mat na tey sëriñ Tuubaa wax ne ko yow de say mbir yéwén na tërbiye nañu la tarqi nañ la lépp mat na Mbàkke Kajoor la tàmbalee ak tërbiye di dem ba Tuubaa mbir ma mat na ci tarqiya ca yooya fan la Bamba xëy yabal ko jox mu del siwaat leeral ko Seex Bamba naa la dale fii ba saw ku la fi gëm man mii la gëm bul soowoo sëñ Tuubaa dana sëñ Mamar Diouf di tàmbalee fii ba sawu jant ku la gëm man la gëm loolu kon assurance la ku la gëm rek man la gëm Cheikh Bamba la dale fii ba sowu jat ku la fi gëm man mii la gëm bul sowu kon mu mel ni dellul fa sowu jant woo murid yi ngeen ànd jaamu yàlla daw marid yi Serigne Touba ko jox ndigal na ko dellul sowu jant nga woo murid yi damay liggéey boole naa la cerno soo ko gisee man mii nga gis maay cerno nga xam ne kon Serigne Touba moo ko boolewaat nga xam ne sëñ Mamad Diouf li sëñ Touba ci géej gi lépp dangay bàyyi xel ne moom liggéeyal na sëñ Touba jëkk muy dem ci géej gi bi sëñ bi demee ci géej gi tekkiwul laxasaayam dafa ànd ak maam Thierno Birahim di liggéey bi sëñ bi jógee ci géej gi foofu sëñ Touba ma sa nekk addiyam fekk na ko liggéeyal na sëñ Touba ci béréb yu bëri mu ne li lee taxoon mu féete woog maam Thierno ngir Bamba moo ko féetaleeg maam Thierno ba mu dellusee fa jënti mel ne jant waa réew ma naa ko bamba ko def bambaa ko def ab jant sëñ Mor Diop jatti bu mu dellusee dafa mel ni ab jant waa réew ma naa ko bambaa ko def ab jant looloo waral ba gaa yi daaruy sant Cheikh Bamba jox na leen lu jar ak cant alhamdulillahi nu sant yàlla santaale Cheikh Bamba ak ma mar ngir yàlla mu ne kon waa daaroo ngi sant te am nañ lu jar sant lu tax mooy yàlla jox na leen ku mat a sante te moo di euh, Serigne Mor Diouf jati mu nekk koo xam ne ñu ko Serigne Touba gërëmee it kon dafa wax ne war naa ko wutal ak tool tool boo xam ne nag du booy mukk day boole noor ak nawet di liggéey waaye xam nga ne pas-pasam yeggoon na ci bu ma saa yónnee fa Serigne Touba njéeréem xandi yi mag ñi yóbbu da leen di wax ne bu mu laal suuf nga xam ne li yan bay diis diis ku ca sonn da wut garab boo ko wékk waaye du laal suuf loola it mayeen ko ngëneel ak tawfiix digganteem ak Serigne Touba te moom Serigne Touba ko nungul addiyaam ba mu wér ndax xam ngeen ne loolu Serigne Saliou Mbacké mu baax ma mas na koo seereel daayira bu mas a jébbale si ci moom di kuréel bu ñëpp xam keroog ba mu jébbalee addiya ji lan la leen Serigne Saliou wax yàlla na yàlla nungu seen addiya ji nam nungule woon Serigne Mor Diouf jël ci addiyaam yàlla na leen ko yàlla nungul nam nungule woon Serigne Mor Diouf jël ci loola kon day wane ab dayoom ak meloom. yëmut ci booba liggéey yi mu mel ni loola dëkkul ca mela woowa ak ngëneel ya waaye xoolal jagle yooyee sëñ Tuubaa nee na ko ku la gëm man la gëm loolu benn tomb la ku la gëm man la gëm ba ca topp mooy bi ko Serigne Touba di defarloo néeg yooyu ci njariñ te loolu di jagle gu rëy di tawféex ju rëy rëy ba mu ko liggéeyalee ba néeg ya noppi ak Cheikhul Khadim ñëw wër koo bëggee ko nu ko bëggee sëñ Moor dafa dajale njaboot gépp taalibe yëpp boof ci seen biir Serigne Touba ñëw wër leen taxaw kàbbar ñetti yoon allahu akbar allahu akbar allahu akbar waaye xoolal la ko Sëriñ Tuubaa wax ba mu wëree njaboot bi ne ko Mamar Juuf yow de sag njaboot duñ yàqu adduna duñ yàqu àllaaxira maanaam duñ yàqu tey duñ yàqu ëllëg sag njaboot duñ yàqu tey duñ yàqu ëllëg na ko ku fa yi jullee naa ko ba noppi nga xam ne kon sëñ Tuubaa moom moo garantir sëñ Mamar Juuf na ko sag njaboot duñ yàqu tey duñ yàqu ëllëg loolu it assurance la boo xam ne sëñ Mor Juuf jatti am na ko ci Cheikhul Khadim mu mel ni it borom cër bu rëy la boo xam ne ay jëfam ci digganteem ak boromam ay jëfam ci ngëneel tolluwaayam bu ko suñu jagleel waaye mel ni ku xamoon ràññee la lool mbooleem cër bu doomu di am mu am ko am na ngërëm fa Cheikhuna al Xadim dellu ko am fa cerno bi takrimi kon Serigne Touba gërëm na ko. ak Cheikh Ibrahima gërëm na ko mboolem ku mu nekkale gërëm na ko dégg nga loolu ñuy nettali ci Cheikh Ibrahima Fall diggante moom moom bi ko sëñ Touba yónnee sëñ Mor Diouf génn dajeeg Cheikh Ibrahima Fall mu yónni ko sëñ moor Diouf dem doxi yónneeb Cheikh Ibrahima Fall ba noppi dem doxi yónneeb Serigne Touba bi mu ñëwee Serigne bi ne ko yow de dafa mel ni xaw ngaa yàq mu ne ko damaa daje woon ak Cheikh Ibrahima Fall mu yónni ma mu ne ko baal dem nga ci yónnee ne ko waa damaa dox ab yónnee na ba noppi door a mu ne ko Ibrahima Fall lay def ndab lu ma duy ba fees mu bëgg a kar boroom rek tu fil fil kon xam ngeen ne moom la ko sëñ bi ne woon sa defal naa la sa njaboot du yàqu tey du yàqu ëllëg moo wone ne ab liggéeyam denc nañ ko foo xam ne dara mënu koo yàq te dara du ko yàq waaye loolu mu jeexe ci ci sëñ Touba ci jëfal ko ni sëñ Touba def yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek la sëñ Mor def nafsi wa diini summa ahli wal walad wa maskani lakk wadiatun abad kadaaka dunyaaya ma oxraaya xam ngeen ne sëñ bi léppam da koo dëxëñ ci biir borom bi subhanahu wa taala jeexal ko ci biir yonent bi alayhi salatu wasalaam loolu it la Serigne Mor def léppam da koo jox Serigne Touba njabootam yépp di Serigne Touba lépp di Serigne Touba ba tey koo tuddu ci biir ak njabootam da ngay fekk maam Thierno Birahim sëñ Daaru lenn lu ci nekk. ci biir njaboot gi day dellu ci moom waaye kun ci biir njaboot gi rek da ngay fekk mu nekk jëfkat boo xam ne ràññiku na te ku ñëw ci penc mii tey xam ne bu nee la njabootu sëñ moor seen taxawaay seen pas seen dëggu seen sellal seen wéral firndeel na lu mel noonu te la ko sabab lépp di jëf te la koy jurit day bàyyi ko ci biir ndigal ngir liggéeyal Serigne Touba ba jëf ju sell jooju bàyyi ko ci ñooñu nga xam ne sëñ Tuubaa lim tënk ne mooy ak murid ca yooye mooy seenu doxin loola mooy seenu melow tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xobbin aw hadiyaati dañuy wax ne euh, euh, texe ñeel na ajjana ñeel na jaam bi nga xam ne dafay wéetal boroomam kon balaa nit a nekk ab murid faaw nekk jaamu bi yàlla bu dëggal ak jaamam gu wéral ak jaamam gu saxal ak jaamam waaye nekk nag muridin sadiq koo xam day namm boroomam am jublu ci digganteem ak boroomam am sellum dox yi nit ci digganteem ak boroomam bu boobaa nag boo amee sëriñ bu mat sëriñ boobee ko wommat dafa am ñett yu muy doxee moom bi xidmatin te mooy liggéey boobu nga xam ne moom la mag ngi doon jaayante di ko liggéeyal sëriñ Tuuba nga xam ne saa yoo ko di liggéeyal ngëneeli yàlla yi tedd nga yëpp day daje fi yow fa tuuba li abdin yaabudullaha rabbahu bi xidmatihi id minhu taati lmaganimu almashar yi nee na jaam bi saa yu jógee di jaamu boromam boole ci di liggéeyal Sëriñ Tuuba nee na mbooleem ngëneel yi ak xéewal ak koom yi mu ngi bàyyi ko ci biir liggéey boobu muy liggéeyal Seexul Xadiim moo tax ñoom ñu jógoon na ngir jël seen dund gépp di ko liggéeyal Sëriñ Tuuba nga xam ne misaalum sunu borom mooy misaalum sëñ Tuba masalu lazina yunfiquuna amwaalum fi sabilillah ka masali habba alquran dafa wax ne ki jël benn dërëmam def ko ci yoonu yàlla dafay mel ni ku jël benn pepp def ko ci suuf sunu borom fulal ko ko juróom yaari gub wenn gub bu nekk def téeméeri pepp mënoon na caa yam waaye da koy ful lu ko soob moom suñu borom te jii mag ñooñu àndoon ak Serigne Touba di ko liggéeyal benn tool bu ñu bàyyaloon sëñ Touba ñu ngi bàyyal seenu njaboot ay tool yi tool gental gin gentaloon seeni dëkk ak seeni kër fekk Cheikhul Khadim jural na leen ay dëkk ak i kër yu dul gent jural leen mbooloo mu leen di liggéeyal te duñ dàcc mukk bi xidmatin kon mooy liggéey ba aw bi xob mooy cofeel bëgg googu nu bëggoon sëñ Touba lan leen jural xam ngeen ne sëñ Touba boo ko bëggee mucc ndax daf ko ñaan boromam najj jamia alladina ahabuni gada min al adabi waltahu bi ragada sëñ Touba da ne yow yàlla ñi ma sopp ma ne ci seen xol na nga leen muccal ëllëg yowmal qiyaamatul akbar muccal leen bis ba nga xam ne fa la jaam ñépp di daje kon mucc mi ngi ci biir liggéeyal euh, Cheikhul Khadim mi ngi ci biir bëgg Serigne Touba texe yi mi ngi ci biir bëgg Serigne Touba waaye aw hadiyaati nag muy liggéey sa alal ba mu leew la nga moom ko jox ko yàlla te mooy jox ko sëñ bi loola bokk na ci ngëneel yi te moom la mag ngi doon def. moo tax gis nga Serigne Mor bi mu amee ngërëm it lam ca teg mooy du daj ci liggéey bi kon day wutal Serigne Touba tool boo xam ne du booy mukk day boole noor ak nawet di liggéey muy jëbbal Cheikhul Khadim kon loola liggéey la boo xam ne it melaw mat la ci digganteem ak sunu borom melaw mat la ci ay yi doxin wu sell sell la te loola mooy continuer ba léegi moo jaar ca mag ñu baax ña moo jaar ca ñëpp ba ñëw ci sëñ Touba Diouf ba wàcc sëñ Moodu mi nga xam ne lu tekki la xasaay moom te doyoon na ci rek. bu newoon ak njaboot gi ko yàlla dénk ñëpp ni ñu mel ci mat mel ko ci sedd mel ko ci tedd mel ko ci ngëneel boo xooloon tey sëñ Touba mi nga xam ne kenn ku nekk boo ko xoolee ci keppaaru sëñ Modou Awa Balla xam ngeen ne kon da nga xam ngëneelam sañ Modou de mën naa mas naa wax moom sëñ Modou Awa Balla ne maanaam ñu bàyyee ma sëñ Touba Diouf de mën naa cee joxe fukk mu wecc kenn kon benn bu wecc fukk mooy sëñ Touba waaye nekk koo xam ne. ku dëggu la moom Serigne Touba ba njabootu Serigne Touba gi seere doy na ci rek soxna ne Bintul Xadiim mas ñuy séentu weer wi ñu naan feeñ nag feeñu mu ne bu ko sëñ Touba waxee day dëgg la nga xam ne moom lu mu wax lu wér la ku sëñ mu daaw balla doy loola woon lu mu ko ba sa dénk fa mu ko fekk lam ko ko joxee nam la mu ca def dara du ci sol loolu ak doyam diggante ma sëñ Muuru feeñoon na ci ci dénk ko alal di laaj di joxe ba li muy joxe jeex muy leb di joxe te fàtte woon na loola waaye sëñ Touba moo ko fàtte lu mel noonu waaye bokk yi leneen lu doy waar mooy koo xam ne malaaka mi nga xam ne day jël ruu yi daf laa rus mooy sëñ Touba Diouf te loolu sëñ Mouraw Balla waxoon na ko ko na ko malaaka miy jël dogal bi kat saa yu ñëwee dala fi fekk waaye dafa am kersa ci yow daf laa rus kon koo xam ne malaaka yi loolu Seydina Ousmane la ci doon ndax malaaka yi dañ ko rusoon am kersaam sëñ Touba yi dañoo amoon kersaam rus ko ngir melo yi nga xam ne moom la amoon mu nekkoon murid sadiq boo xam ne boole jëf ak noppi ak fonk ay kilifaam ak waggar leen jël alalam ak darajaam ak sañ señam ak man-manam jooy xel ci joxit woo xam ne kon fii jamono toll dañuy xam ne sunu borom li jaam bi bëgg ci moom faw mu di ko jëf te sëñ Touba mboolem mag diggu leen ëllëg bàyyi tey joxu leen tey bàyyi ëllëg dafa boole yiwu àdduna ak yiwu alaxira la leen Sëñ Tuubaa boole gis nga fajal aajo faju aajo ak loo bëgg am ko mi ngi ci biir liggéeyal Sëriñ Tuubaa waqdi xawaaiji alladina daamu fi xidmati wa hablahum ma raamu yow sunu borom na faj yitte ñi sax ci di ma liggéeyal te lépp luy seenu bëgg na nga leen ko defal kon boo bëggee faju aajo bëgg yitte ju sax na ngay liggéeyal sëriñ Touba te mooy jaare ko sëriñ bi la yàlla booleel nga di ko liggéeyal sëriñ Touba dane wa gaayatu tawxiir waqri cheyqaka wa jaalahu sayyidan wa hablahu xayraka sëriñ Touba ne na waggar ba waggar jeex mi ngi yem ci màggal sab sëriñ waggar daf ko muy sab sang loo am jox ko faj ay yitteem bil bas de wal kon murit bi moom ndake moo war a faj yittey sëriñam moo ko war di liggéeyal waaye du yem ci di ko liggéeyal moo war di jël alalal di ko jox ndax sëñ Tuubaa nee na defal sab sëriñ muy sa sang jëlal saw yiw jox ko fajal koy yitteem ci jël sa alal di ko jox waaye di ko liggéeyal bëggal sëñ bi bëggal ñéppam ba ca ña nga xam ne ay surgaam lañ sax sëñ Tuubaa nee na na ko bëgg ndax bëgg gi ngay bëgg kook sëñ bi dana la jural bu la sëñ bi gelmatoo rek nga am almazaya wala wula tedd nga ak yékkatiku mu ngi ci biir liggéeyal sab sëriñ ci biir ñoñam kon loolu bokk na ci liy may nit ki li muy sàkku mu mën koo am mu mel ni pas-pas yooyu dañoo toll ci bëgg ko yoxamal bokk yi gëm googu dañ ko bëgg a dëgëral ci jàpp ne ay pexe la wala ñu jàpp ne ay caaxaan la wala ñu jàpp ne mag ñi dañoo yéewuloon waaye fekk na ñoom yàlla dafa ubbi seen dënn tegtal leen sëñ Touba liñ amoon lépp ci pas-pas ak pësief lañ ko amee bu jamono soppi ko nag léegi pexe ak plan lañ bëgg a tëral waaye mag ñi ñoom pas-pas ak pësief xoola gànnaar dañ daan dox ba gànnaar di xiif di mar wax naa la léegi ne la sëñ Mor Diouf bu masaa di yónnee jaareem bu nu yenoo gaal bu nu masaa yenu xandi yi danaan bu ko kenn teg ci suuf ku sonn na nga jël wékk ko ci garab waaye bu mu laal suuf am na ku ñuy wax sëñ bu buso mas naa yenoon sëñ Tuubaa gaal ci céen ba deru bopp bi teggee ko bi mu teggee gaal gi deru bopp bi dafa teggee ko bi ko sëñ bi laajee na ko loo bëgg la ko fàggul dana ko naa la gën a bëgg rek naa la gën a sopp rek nga xam ne ne bëgg sëñ Tuubaa mooy ngëneel lu lu jeex ndax mooy xéewal koo xam ne du dàkk kon loolu mooy pas-pas bi mag ñu baax di nekkoon di ko dund di ca liggéey ba njariñ yi ñëw ay pexe du may kenn dara ay naxaate lu mu la may ci suba gi bu dee dix heures bu quatre di jot nga ñaan waaye ngërëmul yàlla booy dund ngay ànd ak moom boo fi bàyyi ko it ànd ak moom maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di fàttali sama kóllëre sama diggante sëñ Modou euh, boo gisee ma ñëw ci bis bi nit amul lu mooy ka ko yëg ak ka te loolu sama sëñ Modou waxuma la jàpp gi ma jàpp waaye biir njabootam rek kenn ku ci nekk jaral na ma bàyyi ci ay yitte yu bare bare ci ay coono yu metti laa jóge yu tar sax waaye téewul ma ñëw teew daaw daf ma fekk ma tukki xat-xat yu metti laa nekkit téewul ma ñëw maa ngi sant baay yuusu it ndax nit day bëgg kilifaam muy sëriñam fonk ko ku ne fa la yàlla féetale nga jàpp ko waggar ko dana tax keneen koo ne waggar nga ko fonk ko jàpp nga ko loolu wér man bu ma ñëwuloon waxtaan it li ma séq ak sëñ Modou doy na ci sëkk ci suñ diggante man ak moom ci ak jokkoo ak jëflant waaye ginnaaw lii mooy sama cër bu mun ko sakkoo bu ma ñëwee war naa ko mën a feeñal kon maa ngi leen di jéggalu bu baax di leen gërëm sëñ Moustapha maa ngi lay sant bu baax moom it moo jëkk nekk sama wëllëre muy nit ku baax di ku woyef sëñ Abdou Samad maa ngi jaarale ci moom nuyoo mag ñi di gërëm ñëpp ñaan yàlla yàlla na ngeen ko yàgg taxawe lépp luñ jëf daje ci ngërëmul sëñ Touba ku fi teew yàlla na yàlla far say bakkaar defal la ngërëmul sëñ Touba maa ngi lay ziare bu baax ay jëlee ngërëm sëñ Maodo jërë ngeen jëf waa Touba Vision wasalaamaaleykum wa rahmatullah